ñi ne fi ko teg du place am ñi ne foofoy place am yow en tant que sénégalais connaisseur sax xam naa ne ndax xam nga football loo gis. xam nga ne Sadio Mané saa yu football doo doo manqué télé yow mii. te te man dama am canal sama bopp boo xamante ni du ma fay. xamante wu ngi ah. xamantuma Sadio waaye dama la bëgg a wax dara. waaw gis nga Sadio Mané. Mhm. Sénégal la nekkoon fii. bis nga africain moo bañ moo bañ boppam. Mhm. journaliste africain yi jour africain yi. Mhm. bu ñu fa tolloon Sadio Mané Sadio Mané mais euh, fiirante ak iñaan. Mhm. jaloux li tubaab naan vous êtes jaloux de Sadio Mané mhm. les jours africains mhm. je parle ça tout le monde va l'attendu vous êtes jaloux de Sadio Mané il faut essayer de voter ñuy voter ay merci pourquoi voter Messi Messi si pris le ballon d'or combien fois. mais mais mais Messi di dégg naa Sadio Mané sax la voté moom nee na borom voté moom lay voté. si il ah. africain. Hmm. bu dul sax Van Dijk il a fait quoi. il a rien du tout. Van Dijk amul lu def. défenseur bu mag la di. bu Kalidou Koulibaly c' est le pire pire que Van Dijk Kalidou Koulibaly. ah c' est le pire que Van Dijk Kalidou Koulibaly. c' est le bu Naples. bu ah. boy noo. muy boy noo moo gën a baax Van Dijk. ok Kalidou Koulibaly. kon Sadio Mané man dama am lu lekkuma. déedéet daa wax bay jooy. Oh. Dimanche Kamara daa wax bay jooy. Euh, Henri Camara sama xarit bu ma bokkoon day bàyyi day wax ba muy jooy. ku ne di wax africains yi jour africains yi africains yi nekk ay Ghana ay ñëpp. dem di voter ay Messi ak ay ñooñu bañ sa réew la bañ Afrique la Sadio Mané xam nga lu ma bëgg man. Hmm. bu ma am lu moom lu ko metti lu tax ndax tous les journalistes européens. Hmm. parlent sur Sadio Mané. waaw loolu daa am na critique parler ça c' est une c' est une geste plus bon hmm. xam nga geste rafet. geste bu rafet. ñëpp ko bëgg. looy wax ni yow. woo ay Mariou Thiam laay def man man Sadio Mané mën naa koo teree man defal ko bala door. yow mii. tous les bijoutiers du monde laay woo. nekk Afrique ku nekk jox ma benn gramme or. Ah. ñu def ko en wan ne tubaab bi comme ñoom joxuñu Sadio Mané bala door bi ñun africain ñu jël bala door bi jox ko Sadio Mané sagal ko. est-ce que yow nekkoo di li nii. sama bakkanu doom Sadio Mané moom moom bala door bi. sama bakkan doom la non pour yi ngay wax kay kay dajale ay gramme or. mais bijoutier yi mën loolu du question mbalak mais bu ñu bëggee Sadio Mané bëgg seen jour. ku si nekk war na andi gramme or barewul. kon yow fi mu ne da da maanaam da ngay appel boobu da nga koy commencé lancé. appel damay appel tous les budgets Tafa Gueye sama numéro ma woo ma na lañ bu dee bal bu or bu ndaw bu Sadio Mané ñu terele ko ndax gor la du wax du xuloo benn jour lañ mës a gis mu xuloo dañ ko ñu waroon paas paas ñu ko waaye Sadio Mané gor la ak teraanga la. yaa ba sa kër fi nga dëkk Bambali. dafa ay université. ay lycée ay lycée ak hôpital loolu yombul. woo ñi nga doon àndal na ngeen def loolu bëgg booy bi ne ko Jakarta mu may ko cent millions. waay. société Jakarta la yor boobu yor léegi de. ah oui. Sadio Mané woon na loolu bëgg nga ne ko Jakarta. waaw mu woo ku mu jox leen cent millions. ne leen leen. dem leen faw yi léegi lu yoru société Jakarta. kook de war nga ko gis xanaa. kon Sadio Mané maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm. képp ku dégg lii woote bi na nga uyu ci numéro boobu. waaw ñu wax nan la def ba toog Sadio mane budget yi bu ñu amee tuuti sax ñu defar Ballon d'Or teral ko télévision ñëw yéen ngay ñëw ñu defar Sadio Mané teranga lépp tii rek léewtoo kay ñëw nga ko waxee Sadio Mané dañ ko war a defal teraanga ndax li mu def Sénégal maa ne koy ñaanal yàlla defal ko jàmm képp ku dégg lii woote bi na woo ma ci numéro boobu waaw ñu wax nan la def ba toog Sadio Mané budget yi bu ñu amee tuuti sax ñu defar teral ko télévision ñëw yéen ngay ñëw ñu defar Sadio Mané teranga lépp tii rek léewtoo kay ñëw xanaa comme fii nga ko waxee Sadio Mané dañ ko war a defal teranga ndax li def Sénégal kenn du ko def waaw Mm. Kéba Kanté nag doomu Cheikh kante baax na. waaye Kéba Kanté kenn gënu ko. Eh, bàq dañu ko bàq. déedéet Kéba kenn gënu ko. yaa wax lii. maa wax Kéba Kanté ba tey dégguma ko. Mm-hmm. Andaw. dama ko woo ci bis yëpp. Mm-hmm. Andaw Andaw liiru jaan la de. waaw liiru jaan ma jaan bu mag laa <laughs> liiru bu juddoogul moom. waaye damaa ba màgget li ma màgget. ah liiru ja li wuli ne ko màggatum jaan nga. non liiru ñëpp xam nañu baax la moom moom Andaw moom Balla Gaye moom moom ñëpp. waaye moom dégg naa ci yoo xam ne su paree sax ci ci wulli ci yow la jëm si de liiru waaw tey moo ñëw rek <laughs> liiru man lu ma tëjee laay ut ak lu ma bàyyee dama ne liiru weex na de dama ne liiru mën naa koo jël ñëpp garaawul waaye àndaw waaw bamba baaw baab waaw nee naa ne sëñ Tuubaa amuñu poos waaye defar ñu am poos ah, loolu daa am fataa élevage ci buntu bi oto ya fa nekk yëpp fataa moo ko jaay bal la doomu day fataa su ma limee damay jum waa Zac mbaaw Fass mbaaw ñëpp laa woo ba ci Ousmane. Hmm. barki Rasulullah. ci deux FKS. FKS dafa tàkk ci courant Ousmane la. FKS Sénégal Ndiaye woo sama turando Tafa Gueye. waaw woo Abbas Ndoye Malim Rem Ndoye. Hmm. su ma woowee Abbas Ndoye damay song Alou Ndoye. ndax den déexul géej moo lay soobandoo. dëgg la Alou Ndoye bu Abbas Ndoye amul. Bamba Baobab. waaw nee naa ne poos waaye defar nañu am poos. Ah, loolu daa ci buntu bi oto ya fa nekk yëpp. Fata moo ko jaay Balla doomu day Fata su ma limee damay jum waa Zac Mbaaw Fass Mbaaw ñëpp laa woo ba ci Ousmane. Hmm. barki Rasulaay. Ousmane FKS. FKS dafa tàkk ci courant Ousmane la. FKS Sénégal woo sama turandoo Tafa Gueye. waaw woo Abbas Ndoye Malim Rem Ndoye. Hmm. su ma woowee Abbas Ndoye damay song Alou Ndoye. ndax am. Abbas Ndoye am Alou Ndoye am. moo waaw. jën baa nga taatu xeer te jën bi mu daw taatu xeer moo tax ñooñu àdduna laa bëgg ñu jàppale ma képp ku dégg communiqué bii xam ne lambi daaw laay bëri lambi daaw ngay daaw boo koy bëri doo yor dara di abu daa bëri jàppale nag waaw bëri jàppale moo tax man may wut ñu ma jàppale abu rek man damay ma jàppale jàmm gën si kàmbaaw jàmm man ma ne faas li ko dalee faa ba baabaab maa ngi ut wallu waaw maa ngi ut maa ngi woo ñëpp ministère lépp maa ngi leen woo ñu jàppale ma ci bis ndax bi la mais deux hmm. su ma leen cur looy wax Mm. ana andaw ndax deuxième fois waaw